asalaamaaleykum mbokk yi bàyyi xel euh, seen site bi di Sénégo ñu ngi fii ci Touba euh, ci euh, xam ngeen ne ñu ngi génn ci màggalu Touba ki nga xamante ni rek amal nañu ko ci atum 2021 tey nag ñu ñëw seet si Serigne Modou Bousso Dieng yaakaar naa yéen ñëpp miin ngeen ko ci télévision yi ak ci site internet yi rawatina site bi di Senego tey nag ñu fa yéene ñëw fii seq ak moom waxtaan ci li jëm ci wàllu màggal gi ñu génn ak ci actualité yi nga xam ne jamono ji moo nekk ci biir réew mi Serigne bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen sant leen gërëm di dalal waa Senego yëpp ci liggéey bu rafet bi ngeen di def jërë ngeen jëf. mu mel ne sëriñ bi génn nañ ci màggal gi euh, tey jii euh, ban jàngat nga am ci bis bi nga xamante ni moom lañ génn muy màggaluk Tuuba subhaanaka allahumma laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim hamidtu ma yaazimuni min ad-darar min kulli sharrin màggal gi jàll na ci jàmm jàll na ci nu mu gën a rafete euh, am na organisation bu baax ci administration bi ndax gisuñu daal benn incident bu mag bu ñu na wax surtout ci côté force de l'ordre yi daana am ku wax ne dóor nañ fii wala gaañ nañ fii wala blessé nañ fii wala am na tel incident kilifa guñ bloqué wala kilifa gu ñu def ndàngam yooyu yëpp ren dégguñu ko ci lépp jàll na ci jàmm ñu dëkk bi dajal ay millions yi millions dajal dajaloo na fi ci organisation côté sécurité jàll na ci jàmm à part xëy na côté ndox nga xam ne ñaar fukki quartier benn ci ñeent fukki quartier juróom-ñett yi fi nekk amuñu benn dox ndox bu fa nekk ci jamono yu màggal ci loolu moom lu ñaaw la lu mat a la yaakaar naa sëriñ bi boppam sax defal na ko boppam ndax lu ëpp juróom-ñetti at même situation bi moo fi nekk nekk su sax situation récur euh, problème récurrent mais c'est un problème permanent boo xam ne toujours moom la euh, saa bu jub dinañ def CRD dajaloo jàngat ko ne xam nañ ko dinañ ko régler mais mosul nekk dëgg mosuñ ci def li ci war toujours même problème la kon boog ma xam ne tële nañ wala boog jéemuñ ci dara parce que amul benn amélioration amul benn benn avancement bu ci am ci affaire ndox ci Touba tous les grands quartiers yi nga xam ne ñoo nekk au centre ville de Touba du ñu am benn pepp ndox jamono yu màggal yenn gan ñi dañuy mujj sax yàkkamti ngir màggal gi jeex ba ñibbi ñi dalalit yàkkamti màggal gi jeex cantuk sëñ Touba gi nag su fekkee ne murit yi. ñii ñëw ak ñu ngi fi fekk dem nañ ba toll ci yàkkamti màggal gi jeex ndax ñàkkum ndox ndax waxuma sax naan bi mais wàllu set ji ak wàllu cell ji mëntu la nekk sooba c'est catastrophique te xam nañ ko avant gouverner c'est prévoir wax nañ leen ko avant dégg nañ ko avant tontu nañ ci avant digg nañ ci avant dara lu ci dëgg toujours day gën a bon te di gën a metti sëriñ bi wax na leen ko avant que sëriñ bi waxee population bi sonn nañ wax nañ ko fu ne du lu bees kon donc daal mënuñ ci dara wala jéemuñ ci dara ñaar yëpp nag bu ci war bu nekk ñu jógee faa ci gën. Hmm. kon da jàpp ne ak tële lan ci moo ci am. tële wala wala wala sabotage parce que tële autant de milliards investis ana loolu xanaa dëgg-dëgg dafa am loo xam ne su gouvernement tële. mooy gouvernement bu am chance su dajeel dëkk boo xam ne dina générer deux cent cinquante milliards officiels la ñu wax ne mooy retombée économique màggal mais mais sûrement ça dépasse presque quatre cent milliards donc naturellement kon euh, dëkk boo ko am am dëkk buy mobiliser autant de millions de personnes te ndox mi mënoo fexe barke le ko te jéemoo ci dara boobu gouvernement amul benn valeur mu mel ne jamono ji bëgg a màggal gisoon nañ la ci wàllum ubbiteeku hôpital bi ñu am ñu wax sax ñu ne da nga bokkoon ci ñi nga xam ne dañu bëggoon a euh, maanaam teeru président ci geneen anam ndax loolu tey mën nga ko leeral. <coughs> mosuma ko def ñu waxu président 2014 laa ko mos a def ci kër xalifa bu mu ñëwoon Dakar xalifa bu Mouride te defuma ko personnellement dama ko def lu woon te ba ci jógee laa ci laa ko baax samay at ëpp na ko. sama responsabilité ëpp na ko sama sama tolluwaay politique ëpp na ko waxuma laa ne fii ci tuubaa nga xam ne si si euh, mosuma fi saboote ganuk sëriñ bi ci kenn encore mooy le président du ma dem ba yaakaar réew mi taw ci sama ko bës ba ma bokk ci ñaar fukki nii yi ñu fi gën a xam ci Sénégal maanaam dama yuuxu président mosuma ko def xalaatuma ko naruma ko ku may déggali di ko def loolu moom dama waxoon ne rek président de su dee ne mbokkum taalibe la jëm si Touba yi nga xam ne ay mbokki taalibe fi nekk te bala fee yegg si bu nekk mu ne sëriñ bi wax leen wax leen buñ ma yuuxu loolu laa ne la gàcce gàcceeg taalibe mënu koo paase kon ne moom war naa xam ne ñi fi fekk si gëmuñu ne seen taali seen mbokkum taalibe leen fiy fekk si te it comportement wane ne ko d'ailleurs parce que bi mu fi ñëwee it li fi sëñ bi doon bañ def na ko fi muy sëñ bi dafa aaye woon ne bu leen politique. buggu fi benn action politique malheureusement moom personnellement moom def na ko ci defin sax bu ñàkk teggin parce que daanaka sëñ bi di ma baal ma wax nangam dinaa politique ndax président moom parce que sax ci ñàkk ma desté bu ko ne dane man da parce que dane président moom foo mu nekk foog mu mu politique loolu lu ñaaw loo xam ne mbokki taalibe yi ñaawlu nañ ko trop mbokki dëkkandoo yi ñaawlu nañ ko te waroon naa ku ne bam des moom rawatina nag ginnaaw bu sëriñ bi ne bu leen ko def kon day mel ni kat léegi Touba aayewuñ fi politique bi sëñ bi waxoon mais opposé lañ fi aaye te li ci ñaaw mooy euh, su ko sëñ Modou Bousso Dieng defoon dinañ ko wax lu ne ci àddina waaye su ko Macky Sall defee dañ koy bàyyi rek mu jàll. jàpp na par parloo ci wàllum politique def fi am. waaye leer na ndax ba muy wax kay ñu doon tàccu yenn mbàkk mbàkk yu mag nga ca ñooñu xam ñun nag ki tàccu am gaay ñooñu. dafa loo xam daal Sëñ Tuubaa daal ku amoon fulla la ku ñu respecté woon la ku respectable woon la it ku mas dafa amoon li ñuy wax xëy ba ku mas na ko xool ku leen ko respecté kenn mos ko dégg it ci yooyu ci deux poids deux mesures yooyu ba tax na it nit ñi Sëñ Tuubaa lañ gëm keneen ku gëm ku nekk Sëñ Tuubaa tax ñu gëm la donc kon euh, baax na ñenn ñi nga xam ne am nañoo ak Sëñ Tuubaa ak mbokkit ñu ñu mel noonu loolu daal lu lu lu lu am solo la euh, position Macky sàll boobu ñaaw na trop. te it wu yoowu ñi sëñ bi ne woon buñ def contre ko respecté nañ sëriñ bi ak li mu wax mais moom mi njiitu mi mi taxoon sëñ bi wax ko respecté wu ko dégguma nag leen la ko ci fekk ginnaaw bi waaye la ko ci fekk mooy rek mbokki tabi gën koo bañ tey jii assainissement Touba nag nga ko gisee ndax xam nga dem beeg dikk bi am na jafe-jafe wàllum ndox nga xam ne mooy taa ci dëkk bi tey ban jàngat ngay am ak bassin yi nga xam ne fees na bay tuuru ci dëkk bi ban jàngat nga am ci loolu. waaw moom kay ñu doon wax ne def na fi assainissement nangam nee na moom li mu fi def benn paysan mos ko fi def xam nga dafa am mal malhonnêteté malhonnêteté intellectuelle su fekkee ne yow li nga fi dajaloo li nga fi dajale ci milliards ci trente six mille milliards presque moo ëpp la Senghor ak Diouf ak Wade amoon yëpp te nga naan nga bëgg a ñoom naan li ñu fi def def naa ko fi defoo foofu dépassé huit milliards sur trente six mille milliards ak benn hôpital trente deux milliards sur trente six mille milliards xam matul matul 1 pour cent ci sa budget ma noppi ànd da nga diggeel Sëñ Tuubaa dama ne sa dama defe ne sa bopp ngay nax mais ci maandu teg yàlla mi nga xam ne mooy mooy moo bind ñëpp ñëpp di jaamam yàlla mi nga xam ne ku dul moom ab jaamam nga euh, dogal na ci taw bi mu weesu wane ne kat Touba il a un problème sérieux d'inondation parce que bu tawee rek mbedd benn bu nit mën a jaaraamatul léegi tali bi rek a fi des moo tax ñun mooy de de de de 500 mètres doon nañ ko def. quatre à cinq heures de temps donc loolu kon diis na gën metti na daa ma joon ni ñu dox moo leen gënal te dañ doon dox aussi tamit sëriñ bi sax dénoncé na ko bu baax ci ci dénoncé na ko bu baax ci ci ci ci discours officiel bi yaakaar naa dañ ci bàyyi xel gëw ma nag mu bàyyi ci xel parce que li sëñ bi wax xamoon na ko du lu bees ci moom du it lu ñuy soog a wax lu bees muy inondation bi muy manque ndox Touba bi yàgg naa ko wax ëpp na juróom-ñetti at depuis Macky Sall ne fi maa ngi koy wax mais moom xay na noonu lay doxee euh, waaye nag taalibe bi Sëñ Touba yaa ngi gis ñu gis ni muy sëñ bi dama di wax toujours ne leen ni muy gëmloo nit ñi leen noonu la noon la jegee sëñ bi ak ci ni mu koy présenté ci image su ñu demee woon noonu. ak ni taalibe yi bëggee Serigne Touba surtout waa Touba ni ñu bëggee Serigne yi ba mu gën leen seen bopp kon soo baa waa Touba jàppale ko ci li mu nekk mais li waa Touba refusé ko parce que dañu gëmul ne li muy wane ak ni li ñuy gis ci mook sëñ bi gëmuñu ne loolu dëgg la ba ci toppaat it mooy Serigne Touba dafa Serigne Touba euh, ci maanuteeg yàlla ji def na ku bëgg a nax ku mën a doon tamit Serigne Touba def na taalibe bi fi nekk moom jubluwuñ ko. loolu Serigne Touba la loolu moom c'est un c'est un fait boo xam ne gëm naa ne Serigne Touba cautionné ci xoli taalibe yi bëgguñu ko voilà. Euh, wàllum réew mi actualité mbirum passeport diplomate yi ak jamono ji ak ñenn ñu tudd ñu ne ci état bi te mu mel ne ku mel Ousmane Sonko amoon na fi ak yoon ci lu gaaw assemblée taxaw ci ay mbiram tey ba léegi mbir mi ñu tudd ci ñu mag ñoo xamante ni ñu ngi ci biir gouvernement bi tey ji ban gis-gis nga am ci jëf jooju nga xamante ni moment bi mooy actualité Sénégal. non député yi dinañ wuy ji defe naa dinañ leen poursuivre dinañ leen topp dama ragal nag suñ leen toppee ba pare après ñu topp Sonko je pour ñu nee sacrifié nañ de députés léegi nag dindi nañ seen mbalaan ñu def ko kon dootuñu wax ne dindi dindi wuñ mbalaanu député su boobaa bu ñu arrêté député dootuñ du arrêté député ci ay fait fait euh, droit commun arrêté waat député dootu nekkati dootu nekk dootu nekk dootu nekk scandale ci droit comme donc yooyu yëpp na ci ñëpp bàyyi xel rek. kon mu mel ne sëñ bi tim lu jëm ci wàllu màggal gi seetlu na ne am na ci ñoo xamante ni euh, seetlu nañ sax ñoo xamante ni ñu ngi takk ay takkaay bay takk masque or euh, tey jii mu mel ne am na ñu néew doole ñu ne ci dëkk bu sell bii di Touba te yow ban jàng ngay am ngay def ci loolu ak ban message ngay tiire ci ñi nga xam ne ñoo def lu mel noonu. waa xam nga Serigne Touba moom li mu jàngale lu leer la moom ci sunna la nekk ak ci charia ak ci jant koo xam ne nag dangay foo wala ngay puukariwu euh, waxoon na ma sàmba ne ko mu jug jamono fukki fukki ñaar fukki firqaat ñooy woote jëm si ci man te fukki ak juróom-ñeent yëpp ci seytaane lañ jëm benn bi rek ma gis ci moom mooy ñi nga xam ne dañuy màggal ci njàngum alxuraan jiital ko teg ci xasida teg ci berne ngir sant yàlla ak moytu yàlla ak moytu yàlla gërëmul parce que doo santit sa boroom ci lu ko naqari wala ci lu mu ko bëggeewul wala ci lu muy bañ donc kon kuy caaxaan wala ngay fo dégg naa sëñ Mahdu Murtada Fadil nee na sëñ Fàllu nee na leen sëriñ Tuubaa nee na leen suñ boroom dey fowut foluwut te li mu yor it foo ba jot ci moom Serigne Touba daana wax it te di ko miraaran miraaran wa takraar di ko wax di ko répété ku dugg ci bàmmeel ku ne di nga xam ne suñu borom foo wut foo lu wut kon nag defe naa ne kuy màggal ci ay caaxaan wala ci pukkare wala ci buzz walla ci euh, ci caaxaan wala ci namm événement wala ci nammu noos. defe naa ne sëñ tubaa jotewut ak yow dara te jotewoo ak sëñ tubaa dara te tooñ nga ko ndax dëkkam bi nga ko defee neexu ko te bu bu yomal xiyaamee it bala ngaa bala ngaa jéggi siraat yàlla dina laa teg moom kon sëriñ tubaa ku ku li ma koy wax toujours rek mag mu sonn la ku sérieux la ku bëgg yàlla la ku bëgg yonte bi la ku yàlla gën a léppam la ku yàlla gën a léppam la ci léppam yëgu dara lu dul yàlla bëggul dara lu dul yàlla yàlla nangu léppam gërëm léppam képp ku caaxaan daal wala ngay def si fi bopp nga moytu ko moom loolu daal moo ci nekk. Ah, élection locale yi ñu ngi koy jublu si tey jii euh, ban gis-gis nga ci am ak yow tey jii élection yi ban euh, tànk nga ci fas yéenee doxe bon li ma wax rek Touba laa Touba laa nekk Touba amul élection Serigne ñu ko neex moo ko moom sañ na ko la ma ca la ma ca bëggul nag te yàlla bu mu ca nekk mooy la ca daan nekk mooy mu nekk ci bañeeru Benno Bokk Yaakaar bu ci sàll parce que li ëpp ci Touba xam nga ne woteeluñ Macky Sall ci élection yi fi jaar yëpp ba Macky Sall toogee léegi leer na kon dugal nañ ci vote boo xam ne su noppee bu ñuy recenser vote national bi dañ ciy boolee vote bi Touba voté nga xam ne Touba jàpp ne sëriñ bi lañ ko voteel ba noppi mu na ci listu Macky Sall boo xam ne bu noppee Macky Sall lañ koy wàññil woteel sëriñ bi ngir sëriñ Touba ñu wàññil ko Macky Sall mais xam lu muy def lu nekk sëriñ Touba mujj ca ci luñ mën wàññee ci ay chiffres. yaakaar naa loolu détournement d' objectif mënu ko passé te it ma ciy ñaax mbokki tali bi te di leen ko leeral neen liste bi kat liste sëriñ bi la dëgg la waaye kat ci bañeeru ci bañeeru bennoo bokk yaakaar lay nekk mbaa boog ci la Macky Sall wax na ci la nekk te bii weesu ci la nekkoon te buñ ko ci wotee ma noppi ñu woteel ci ngir sëñ Touba suñ noppee vote boobee Macky Sall da koy voté da koy waññaale waat ci yim am ci si le plan national te ku ne xam ne Touba voté wuñ ngir Macky Sall loolu leer la lu mat a bàyyi xel la sëñ Touba dafa neutre sëñ tubaa àndul nag ma sàmba àndul nag ma demba sëñ tubaa yàlla ak yonente bi la àndaloon ak fi xoli taalibe yi jëm te xoli taalibe yi dëkk fii fi tubaa ànduñoo ko Macky Sall jëmuñ ci moom loolu wér na ko leer na la yow may laaj leer na man élection yi fi jàllum yëpp yëpp da koo perte terriblement kon xoli taalibe yi fii ànduñoo moom kon nag seen vote bu ñu ko ñeewate ci biir kër ki Sall dina nekk vrai vrai vrai détournement d'objectif donc loolu moo tax 2014 wote wu ma parce que sama votu sëñ Touba bii duma ko jox ñu wàññaale ko ci fu ma àndul man loolu laa ci jublu woon. tey jii ndax mën nañ la xaar tey jii sëñ bi soxlaa ci wàllu mairie bi Touba euh, nga dem taxawee lu ni mel. sëñ bi bu ma sëñ bi bu ma soxlaa ca ca ca mbay ma kay ma dem ca su ma soxlaa njàngum alxuraan ma dem ci bu sëñ bi jëloon kiwam ne nañ génn tàccu Macky Sall ma def ko du dëgg su ma nee voté list bi ngir sëriñ bi parce que damaa yaakaar ne jàpp ne am na ci loo xam ne sëriñ bi xamee ko wala leeralewuñ ko noonu. waaye sëriñ bi fu mu féete rek ma féete foofu parce que maag sëriñ bi amuñu nuance ci loolu parce que sëñ Tuubaa laa gëm man sama lépp sëñ Tuubaa la ci ko ma xam waaye nag indaar alerte farata la leeral farata la ubbi boppi nit ñi boppi taalibe yi mbokki taalibe yi farata la te ku nekk ak fi la sëñ Tuubaa féetale man ci jaanib siyaase bi la ma sëñ Tuubaa féetale mooy el politique bi foofu laa nekk ci loolu laay assumé mu mel ne yenn saa yi say attaques yu bëri ci wàllum euh, Benno Bokk Yaakaar di ñëw ci yow euh, lan mooy sa problème ak ñi nga xam ne ñoo responsable yi ne ci diwaan bu Touba. ñii xamuma leen su ma Benno Bokk Yaakaar Macky Sall laay wax mooy suma interlocuteur mais ñi ci des xamuma leen ñii miinuma leen de su Bokk Yaakaar Macky Sall laay wax mooy suma nawle ci chef de parti ok moom laa xam mooy président de la République bu yor ñëpp nga xam ne ku ne sañ adresse ci moom mooy. le premier sénégalais boo xam ne si démocratiquement ku nekk am nga droit de regard ci ci gestion ci ci fan la duggal suñu alal fan la jëmee suñu réew mi loolu moo tax moom laay waxal mais ñi ci des xëy na sama responsable yi wala ñi ma fi nekkal ñooy wax ak ñoom mais du du man. sa tolluwaay ci politique ci département Mbacké lan la. non sur le plan national. je ne suis pas local tamit. waaw euh, su su su Touba amoon su Touba amoon élection. lu ñuy def loo lu ñuy def de manière doon nañ xam man mais mais mais écoutez sëñ Modou Bousso man sama dimension actuellement wax naa léegi ne la bokk naa ñaar ñaar fukki nit yi gën a xam ci Sénégal su suis une personnalité religieuse je suis une une personnalité d'opinion je suis une personnalité politique donc euh, du may toog naan fii la sama personnalité tollu sur le plan local wala sur le plan voilà. Hmm. yan kàddu maa ngi leen di gërëm di sant ci liggéey bu rafet bi ma leen doon wax di ñaawlu waat une fois encore ñàkk kersa Macky sal bi sëriñ bi ne bu fi kenn politique. moom mu def ko te ne ko sëñ bi danga ma may ma def ko ndax maay président loolu daal des na sama fii. la metti lool. waaw defi boobu daal moom des na ci sama fii ma defe ne it kon mbokki talib yi ko bëggoon na yuuxoo am nañu raison parce que bi leen sëñ bi ne seet leen ma ci it moom bi mu ñëwee seetul sëñ bi kon sëñ tubaa jox na. jox na dëgg mbokki taal bi ku bëggoon yuuxoo ndeke kii bu leen ko yuuxoo wutit moom bu ñëwee dana leen wan ne leen tegu leen fenn donc euh, waroon naa seet loolu lépp waaye def ko wan na mbokki taal bi ñu fekki ne leen man kat ñii laa mel kon la mbokki taal bi xalaatoon ba tax bi muy ñëw teguñu ko mbokkom taal ba tax foog sëñ bay génne seet leen ma ci lu ngeen ko def ma leen ko def kon moom tamit waroon na cee seet sëñ bi waa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin